papa yow tamit nag dangay déconné quoi. non déconné wu ma. comme naa leen wóoree gis ma def lii démb la nga ñëw bëgg ma kii. mu yow dangay sama xarit tey kër gi yaa fi kilifa. Hmm. mu neex ñu ni mu mën a xarit yaay kilifa kër gi fi toll nii. Hmm. yaay buum yaay buum. Hmm. waaw donc ma dara rek. doo doo doo kër yi doo faral di tëdd ba guddi koo ne baax dina làmbatoo ak yoon. mais te moom moo tëddee bu guddi si suuf lay tëdd bàyyi ko si kaw. mais boo tëddee da ngay nelaw. nooy ne nooy nelawee. ku nelaw tëdd ba guddi sant dara dara. sant dara dara. amul mooy yéen a nangu doom. mooy ñàkk na ko damay nekk. waaw loolu moom lu la wax rek damay jaay affaire affaire mag bi. aussi oh, loolu nga may jaay man xam naa li ma. ndax xale <laughs> xale ki warul def ay affaire lamb si xelam gam xale bu ndaw la ñu ne na koy lamb ah <laughs> te yow bu ñu yàqu ndox mi. te yow bu ñu yàq doo may ma àggali. ah doo may ma àggali bul fay. damaa damaa rus rek damaa rus. damaa rus dafa blanchage. d'accord. kay bu ñëw. daal naa rafet sax. merci. kaw moom damay dem nii. ah damay dem kay waaw. ah. dama yoroon yëpp jox naa ko dem. ah d'accord. te yàlla baax na. waaw. yow dëgg. waaw. mbokk mbokk Mongol Mongol. mbokk. Mongol xanaa yow la. million ay xoolal sa bopp de yaa sa weer yóbbu. ay weer yóbbu ak non maa lépp doole maa la. bisu si daal ci dem. laal ma laal ma laal ma. non dama ni boo boo. laal ma wu yaayooy yaayooy. damay tax de. waaye nit ñi bali bali nga kër. xamuloo sax. foofu may sëw may yaatal bi wàcc yaay dafay mu neex. xamuloo sax. foofu may sëw may yaatal bi wàcc yaay dafay mu neex. Seydou bu ñu añee wala ñu lekk dañ ko santee bàyyi tas xam naa bàyyi tas di teraangaam bu bari bii ah góor de la garmi la. waaye tas sama yëf la yow tamit. ah waaye yow daa mel ni da nga koy fu mu ne nii daa mel ni da nga koy dribble de. dribble. dribble comme nag. ah yow ba mu la proposé wu xaw ma nu nuñ koy waxee. proposé ba mu la wax waaw kay waxee waxi mariage ba léegi. waaw damaa gisul nga wax ci doxoo ci defoo ci dara. <laughs> waaw lu ma ci waxee da ci doxee yow xam nga situation bi fi dox yépp almaa mi réer na ma koy wër ah kër gi yaa ngi gis ni mu mel et puis man bala may dugg ci néegu sëy damaa bëgg jël almaa bi ba mu leer na ni ma. almaam yi maa ko jur ci ay kayit adopté ko adoption est-ce que donc bu loolu amee ma soog a dugg ci biir sëy bi bañal ma moom ndax xam naa ni jullit na baax na te kenn du moom waaw waaw waaye daf kenn du góor gu ñuy dàq yow bàyyi taf rek waaye waa kër gi ngi bëgg ay gaaf la bu tayee suba lii ba ndéggee mariage ba léegi chaque jour ak bii xew bu tayee almaami suba ndiib eh, gannaaw suba mbay lii. Oh, dañuy bañ man la ñuy bañ ma mariage. mariage bi day am de. man la ñuy bañ. ma mariage te bu soobee yàlla kol gu weex ki dinaa ko teg sama kaw. waaw maa lii. ma téye kii bi nga téye eh, kii bi. <laughs> ballon yooyu. ka manque yooyu ñuy taf ci kaw naan. bonne et heureuse mariage. dégg nga loolu. waaw tubaarikàlla boobu moom dinaa ko dégg yéen muy yaa awa muy Ibou Ndi mu mel ni yóbbu avorté. Ah, muy mbay gàttaayam di mel ni poobar doom. kii bàyyi ma ñi ñi daal bëgguma leen sax jëw mais dañ nit yoo xamante ni man sama dara. sama dara lañ bëggul. waaye xew parce que xam ni Sénégal gi yëgal naa leen ko. ah dégg naa la dégg naa la dégg naa la de. comme yow bu avorté. yow benn problème rek am na da ngaa hmm. ok jigéen xam nga moo tax fi mu toll. lu nooy ngeen di xalaat bi nga. ma lu nooy ngeen di lu nooy ngeen di war yéen. waaw mais yow da nga léegi xam nga loolu problème man gis naa perte ñëw na fi décalage am na. waaw leer na ma ni dafa ñëw ngeen teg xam nga. Hmm. ni nga ko ci ngeen daal da ngay mel daal. waaye boo dëjee da ngay doy waar. Eh, wax laa bëgg. ñoom nga yow lu ma benn problème. waaye non déglu ma rek yow nit ku baax na waaw yow nit ku baax na waaye benn problème lañ fa am mooy. danga ku ragal yàlla nga nag waaye loo dégg mu siiw hmm. loo jekk mu dem ndaje moo yëg bu soobee kii batab la yow bal caaxaan yi maa ngi dee déclage déclage la <laughs> yow da nga am say daal bu <laughs> jëlee yow say daal bu na xoolal summi yaay bu ëppee kay doo ko mën a summi am summi daal summi ni nga yeew ba nooy woo summi da nga yeew ba nooy woo ay waay dafa ëpp Titanic da lay nuru bés boo bësee fii mu yaay taxal taxal yow dëj gi dëj gi nga bëgg ak mais dëj gi pour lu ko contrer du yomb de. del diw boo xëyee del diw. kër gi yëpp maa leen di may diw. dama ko ragal. dama ko taay kay mi ngi nii yaa de. waaw leen ma wuy mi jig kinne ngeen ko wax seetlu ngeen ko. beneen kaawa ngi hmm? noonu. Hmm? ngeen kinne yéen. a seetlu. Kiné du wax. dama lu ma ci jaaxal depuis ba ngeen antee dem jëli ji almaan ba léegi Kiné waxtu bu lay xool day mel ni moom bu dofee nañ ko nëbbal ma Fassek sama maam la di. waaw dëgg la ma Fassek sama maam ko ci kër gi. moom la ko ñii ay lébu maa ngi ma leen doon maa ngi. alors léegi ka damaa jaaxal. dofee nañ ko faj ah. foo toll yow. kii wuy ma sa xarit. nooy toog gaañ tey. maafe dalaay toog. waxal ak moom nag sa xarit. cuma nooy toggee maafe. maafe li ngay wax yëpp yow li ngay wax yëpp laa di ma la ko. nooy toggee maafe yow. naa toog togg. noo koy toggee. maafe da ngay teg sa cin. waaw cin moom c'est obligatoire. waaw ñu dee waaye nga ñulu. ananas ah, sabal ndugg la ah, waaw non ndugg naa ba pare fi toll nii de ah, wala da ngeen cee boole ndugg bi yeggali yeggali voilà tey lan ngay ndugg booy ndugg en gerte di ko wut waaw ci maafe la bokk tubaarikàlla di nga wut ceeb ndax di ko ñànk nag ceeb waaw di ngeen wax dafa teel a xeer ci maafe <laughs> moom kay waaw moom bokk ak yow bu yàpp wala bu jën est-ce que du ma laal yàpp hmm. waaw aw ay ma baree jënd yàpp yaa ngi dégg. waaw su ma jëndee yàpp ah. Eh, laay du ma fàtte mukk nag fa tabaarakàlla xorom xorom nga xam ni teera teer man ndugg laa lay tegal nii li may jënd. yaa ngi dégg. bu ma jëndee sama yàlla bu mu fekk kër gi amul ndox ma jëndaale teel a jëndaale ndox ca marché ba. bu jëndoon ndox kër gi si bu fekk xam nga des fois rek ne day tëj dañuy waxtaan. Eh. ma jëndaale ndox indi ko. yaa ngi dégg jënd sama kaani nga ni déeta waay ma laal tuuti poobar ah bu fekkee xam nga sans dépend ñu ni déeta waay ma jënd sama vinaigre macha allah ah ci maafe bi waaw maafe day am vinaigre sans dépend jaawale laa la day am ci maafe du ci am waxal askan lay déglu de askan wi bay déglu yaa ngi dégg bu ma neexee sans depan ci maafe yi parce que bu la neexee moo jënd yéeg yéeg gu tay ah. yaa ngi dégg nga ni déeta waay xolal <laughs> yàlla bu ma am tiir tiir <laughs> waaw yàlla bu ma am baxatal laay yàlla bu ma la yàlla bu ma la tiir waaw tiir ci tub ci kaw waaw waaw. sans dép waaw sans dép am na ñuy lekk maafe di ko booleeg tiir. aywaay am na ñuy lekk maafe te duñ ko booleeg tiir. man ñi koy booleeg tiir laay ndugal. dégg nga ma de man ndugalu ma ñiy lekk maafe sans tiir. Ndip jërëjëf. ñu ngi dégg waay. jërëjëf baax na dafa doy. doy na baax na. oromasi laa bëggoon a. doy na <laughs> kenn day man. ba. muy kii. mais kii batterie bi muy batterie ci téléphone. bon. yaakaar naa ma kii. non man kay seet damaa xamul man maa koy expliqué. moo de bu dee man nga maa dimbali ci loolu te yàlla ma ci xaw a dee a dee. Ibou Ndié. li mu gën a dox di di di di baax. maa ngi wax ak Ablaye. dañuy waxtaan fi mu nekk nii. affaire père taf lañ. bari yàq waxtaan. yaa ngi dégg. tuuti de day xam la li ko kii bu la kii bi. waaw ay di xam nga bu lay laal ngay gaañ ko tànn di may fexe di may utiliser daal day xam nga bu fekkee mën nañ koo wax. yow kii am na fit. non du ma la nëbb de sérieux xale bi ni muy baateree ci kër gi di dox di ko bi man daf may feebar. xale bi moom mii mag mën na laa jur. amul problème amul problème fii bu doon koo ku ne doo doo seq ak moom dara kon almaa mi bu yàgg. ko waxtaanee rek mbaal lu mu raadu ci suuf. yaa ngi dégg am na bii ma bii yoon nga ma koy wax. comme si naa parce mi ngay àndal. mbégte mi ngay àndal di xëy di sourire. ndépp lii plaisir rahmat. maa ngi man li ngay wax jaaxal na. ndépp ndépp dañoo xam ne sa digganteeg yàlla loolu daa nekk sa xel yow. almaami surtout si lu ma koy doyee. su ma dee jël almaami sa xanaa ma roog a jël la yow. man kat wax kat damay wax <laughs> damay nettali. ah kon da ngay nettali kon amoo sens ci kii man dama doon seetlu woon nettali kon ma gérer sa diggante moom ndax xam naa ne xam lu ne mën naa ko ci. <laughs> ba pare xoolal te daal ëpp na. xam nga lépp pour bëgg ko xaaj wéy ko jëlee lépp laay bàyyi. Hmm. maanaam ak yow xam naa ni te amour gi dox na sama diggante maanaam ñoom la amour juróomi lettre la. muy A M O U R A c' est addition des cœurs. yow de war na yàlla ki ngay waxal sa affaire mariage da um lay um M c' multiplication des lèvres. kon oh, na ah, ay oh, oh, um. orientation des sentiment une unité de bonheur et rotation des corps. kii bu ma ko tax a foo gis lu grave. yow yaa décortiquer amour ba pare noonu. waaye yow moo bi utilisé woo ko. lu tax nga bëggoo kenn. tubaari kàlla yow ci impersonne. pourquoi yow Ibou Ndim xam nga ban genre nit nga. ki nga xamante ni day jël xolu yàbbu jàmbur teg ko ni ci loxoom di ko tël di ko tël di ko tël di ko tël ba xolam sedd mu teg ci suuf boobu genre dama excuse nag ci kàddu gi tubaari kàlla. loolu loolu na ma jàpp quoi. waaw loolu non loolu nga doon yow ak mbay yéen ñaar moom ku leen jox xolam daañu refaçonné. dama tu te trompes yow maay wax yow. ok. waaw baax. baax na première baax baax na deuxième baax. Mhm. te ku ne xam na ni teekutaan bu baaxee ñetti baax rek daanaka ñor na xom bu baaxaatee rek nga suukar dee. dama nga ubbi kii fëgg. kii sone noonu. plus kan ah dama koo xam. Eh, ah, dama ko fii. Voilà la réponse. Ça ne se fait pas. waaw yow tey moom nooy nga de nu mu demee nii. sama gars yi. waaw sa gars yi waaw. waaw. mbay ma ne ñu ngi mbay sax mu dugg. waaw. dégg nga. ah d'accord mooy ma ñaan. koo jëm. togg ñooñu tey de. ah dina tey togg. ma yorul ma ne ndax Binta toogul tey comme yow ku toogul rek nga dem. dina ko wax. ah. luy loolu. yow daa xaaraani woon démb tey. waaw te dellu ndiim la bu ma ne ndiim dama xayal de. ndiim. ndiim pour. yow. yow ndiim mujj démb dafa mujjee arrêté doon dem. ma doon dem dund ñu métti lépp bokk parce que nit booy ànd ak ñoom bu neexee ngay ànd ak ñoom bu naqaree dangay ngay gore ànd ak ñoom. ndiim bu ma tax a wax. waxal. xoolal nag boo moytuwul ci biti ngay waxe de. ci biti waaw parce que dañ lay teel a génne. loolu dafa am loo expliqué. waaw fee lii góor. bàyyi ma mu dugg expliqué la li ngi def. génnal génnal bu ma profité. li nga def yëpp yow da ngay jàpp nekk jàpp. yow tey ngay siiw. yow mbay boo doon jigéen ku gaaw cëpp ngay. tey ngay mel ni tabalay naa. waaye kaay ma kaay ma wax la kaay. koy wax yow ñëwal na lay kaay. kaay rek kaay man taaleen tey seen teew ma de. voilà. baax na. Eh. lan ngay def yow. daa neex. yow tey laa lay weer ni géej nag. weer yow tey du ma la may dara man ngay wax nañ ma génne. non ay weer dinañ weerante kay. comme commencé nañ weer ma rek nga man suba laay suba suba laa war a gisanteeg Sarr la. nañ weerante. suba laay gisanteeg Sarr la. nañu weerante ay weerante duñ gisee après nañu weerante. Ah, léegi Marina kii démb da doon dem spectacle. kër gi mu dool yow nga dem kër Binta lekki mbaxul Saalum. damaa dugg si léegi mu ne lan kii bu mu dugg. waaw dem maa ngi ñoroon ànd wax la loolu. ànd dem fan. di la teg nga dem def spectacle ndim xam man du ma jëw loolu leer naa la yaa ko defal defal. yaa ngi gis maanaam kii pour te dire maanaam internet yi ñu ci laaxatu noonu di di di ay image nit ñeeg yooyu moom ci yooyu lay yëngatu. waaw dama ne la ndax mu yàq image nit ñi def defu ko muy hmm. dara pour jéem laa collé yooyu. Hmm. ci waañ bi la ma fekk damay dem kër Binta man ma saa fi occasion kër gi lekkuñu yoruñu wéruñu bu ñuy tëdd dee ma ne ko ay manquant lañ mu ne ma waaw kër Binta laay dem de mu ne ma est ce mën naa ñu dem ma ne ko xaaral bége muy neex heure boo ñëwee ñëw ñu dem mu ne ma xaaral ma tàggoo spectacle spectacle heure boobu foo gis. gëm la yàgg na laa def ay yëf. mbay da nga koo gëm da nga koo gëm waaw. yow yi moom moo koy wax yow yow da nga gaaw a cëb. yaa ngi ko problème yow Ibou Ndim yow ban problème nga am yow ci gàlle. dama ne yow da nga gaaw a cëpp est-ce que da nga gëm lii Marina bi wax léegi yow parce que yow am faiblesse ci jigéen bu xees ñëw na taxaw xeesaayam ma def ay tupp tuppam sol loo xam ne nii mu mu ngi transparent ci biir yaa ngi dégg nga nga nga mu lay wax ngay gëm xam nga man sama intérêt na bu ma waaw parce que yow da ngaa wane sa bopp ni da ngay dem añi kër Binta laqatuwoo laqatu moom mais moom léegi lan laa la wan man luy wane ni man damaa laqatu parce que Ibou Ndim yow Marina yéen a doon génnandoo kër. loolu yow da nga koo fekke waaw ñu teg li ñuy teg wala dañoo daje ci bunt bi war a génn. for na ci ci woyu bëy. weewu bëy mu ana bëy. bëy ngi noonu di dem. mu ana mu moo teg ci sa loxo. maa ko gis moo ko. amoo preuve t'as pas preuve lii tey bu doon tribunal la ñu dem yow boo moytuwul di nga dugg ci gini bi yéen yéen ñaar ndax. y' a aucune preuve de ce que vous en train de me raconter. message yi nag <laughs> message ma génne. message la mag yow xaar ma ci suuf dama koy lijjanti. fan message normal la wala message whatsapp. wala hmm, neex waxal Ibou Ndim. yaa ko defoo. fu ma ko defee nee ma fii nga ko defee. nangoo lu may nangu. waaw grave problème. bàyyi leen yàq image doomu aadama nekk ci internet bi wala nekk ci nit ñi di yàq seen ay image di ko divulguer yaa ngi dégg rafetul. day fekk nga def ko moo tax. bàyyi seen caaxaan yaa ko def ñu wax ko rek. mais bref grave am ma lu tar li dund mu metti ñu dundandoo ko kii di sama xarit nga bëgg maa jaxasee moom fekk ñaari góor yuy ànd yàgg ànd nga bëgg leen a sa jikko ah. Ah, man moo ma que yow lan am rek la am lan la. xanaa diba ko moom. kii de ngi dugg ci classe bi de. non c'est yow Ibou Ndim yow man comprendre mais yow da ngay déglu yow Ibou Ndim eh, yow man yow ma la yow Ibou Ndim yow game yëpp fi sama ñaata gel Ibou Ndour nangu na say gel nangu na say gel yow tamit da ngay xaw a manquant trop chaque jour Ibou Ndour nangu say gel lii lan la nii. nangu ma leen ñoo ma nangu. Ah, ba loolu di ci xew xam nga lan la désormais bu ko waxati loolu day appliqué tey jëf ana léegi. léegi dama ko bàyyi woon. xam nga lan la démb ba tey yaa ma dama lay bëgg de mënoo arrêté dama ko ko bàyyi dama ko bàyyi luy wal lii ka. Hmm. woo ko mu ñëw. woon kii téléphone. yow fu sa yoon nekku si dama leen di toog yow bu fekkee bu fekkee bu fekkee nan ci xam dara même bu dee dañuy coupé ba fekk leen fa sax dama leen fay teg. mais dugal ko kuwaay. bàyyi sëy bàyyi li ngay def damay dem ci appel bi. doo ñëw ci appel bi de. dama koy ma ciy ñëw. moom kay annonce bi laay def rek nit. kee déedéet dara du ñëw. damay dem. mari la kay annonce bi de laay laal rek. ki ne. non mais Ibou Ndim. ñoo ko damay damay ñëw. kii oh, gis nga bàyyi am. yow lii ka a gis la Ibou Ndim de gis la waay. kama gis la. dafa gis la. yàllaa la ci génne ñoom Pape Almaañ fii laay toog. yàllaa la ci génne. pose leen pose leen ba mu ñëwaat dégg nga. wuyu leen kilifa gi. ah kii bi teg fa loolu kii bi danga forcé li palaise. bari naa maa ngi koy wax li palaise. sama fit bàyyi naan def allo. allo. bon ça. et toi? tranquille ci lan nga nekk. bah je suis en voyage. luy loolu. xamoo ah, luy loolu. non non xamoo luy loolu. je yow. léegi booy dem voyage doo ma tàggu. parce que tu t'es énervé da xaw ma yooyu da ma teg stress trop mënu ma Sénégal. waaye léegi boo mënta toog Sénégal léegi yow doo ma tàggu da ngay rek après nga dem nga dem nga dem sa yoon comme ça ah, bien sûr j'ai pas le choix. foo nekk ni t'as vu je suis. waaw. luy lii. au lieu de je je supportais pas de rester au Sénégal en même Donc, du coup, j'ai voulu euh, aller mën ngay jéem a yàpp di am moon problème yow da donc da nga yaakaar ci woon problème bi donc yow ki la doon woo kër yi moom moom moom moom moom moom nga àndal. bébé moi je t'ai dit man xaw ma problème bu fekkee ni ay genre problème yooyu ma je peux supporter je préfère dem fenn isolé wu moi seul au calme sang yi yow mooy may may sang bi yaa ñëw naan ma jox la wéccet. waaw maa ngi dafa am fa ma ne du xëy affaire yi dëgër affaire yooyu te gis naa ni démb yaa géré kër eh, kon naka jekk ma xam ne yaa ngi ak wéccet. mais maa ngi ah. daal yàlla na yàlla baax rek nga xam yaa ëpp ñëpp problème. lan. maa la problème foofu loolu nga xamul. almaam yow yaa ma ëpp problème yow yaa ngi ci kër gi nekk fii ngoone mbaay fuyal la nga nekk ci lu la neex ah di dugg ci lavabo bi di def lu la saf. nga ne yaa ma ëpp problème sa papa. ah ana papa. mu ngi fi. yaa ngi déggante. waaw ñu ngi déggante. mu ngi fi. bët sama yaay. sama teg bët sama papa. te teewul ma koy maîtriser yow ma gub jëm di gis lépp kos daal yi ba may solo ba nice nekk nit bu nit li nga jóg kii xale yi quoi mel ne ko yaa ma gën a xam bul yàq sa daal yi wul Marina Salut ma chérie. ma chérie comment bu ma ci feeñ. waxal moom te très bien et toi. yaa ngi si jàmm. oui bu baax. yaa ngi tranquille bu baax. léegi benn affaire moo am mbay lu mu jàppoon yëpp bàyyi na ko. convaincre naa ko léegi. da ngay def tuuba ñëw comprendre nga. après yéen ñaar ngeen defaraat seen diggante àdduna amul solo parce que ñun xam nga ne bëgg nañ la ba pare. Mm. léegi yow waxal kañ ngay ñëw nga teel a ñibbi si. ok ok bon bu fekkee ne moom bàyyi na affaire yu fiiraange yi moom dafa war a xam ne genre man maa ko tànnal sama bopp et que du lu ñàkk fayda moom dugal si moom. Mm-hmm. man damay may métti quoi. Mm-hmm. yaa ngi te man xaw ma ko te mën ko supporté en plus. moom dalaa bëgg ñibbisi rek dégg yow loo jàppoon bàyyi ko mer beeg yëpp jeex na stress beeg yëpp boo ñëwee moom macha allah nee naa ko boo ñëwee sañu takk la benn yoon. yaa may wax lu neex ma ñibbisi. waaw waaw loolu neex na ñibbisi suba ñu dee si la aéroport amul benn problème dégg nga. allah. gros bisous ma chérie. maa ngi sa njëkke lépp looy defarati mbay rek. waaw loo koy defarati rek. seet ma ci nga jox ma ko sax wala ma koy jox ak yooyu dégg <laughs> yow xoolal am nga lépp yow. ëpp na. jeex na yow suba kon ñu ngi lay xaar xaar mu jox la mbay. ok merci ma chérie. ok merci beaucoup. ngeen ñibbisi. ngeen ngeen ñibbisi. demain bu fekkee ne xuloo bi jeex hmm. ah bàyyi sa si bàyyi sa kii nag sa rëy rëy lu yi waxaal rek boo waxee rek ma ñibbi si xul ba toog de. Hmm. damay toog di sa si lu mu neexee. yaa ngi kay ah ñibbi hmm? ah, lay mu la namm nag bilaay mu laa seytaane moo doxoon suñu diggante rek xam ay baakar yi ñoom doon wax naa ma ay yow noboo ma naa la xool di vérifier parce que ba pare li ma wax ni man del góoreel des fois bu ma doon ngelam ngelam ni moo naa ma noonoo góor du def lii góor day war di dëgër si gil wan booy bi ni ko lii te man bu rekkoon man sama rythme rek la woon duñ ma am problème man ak ah. Ah. mais topp baakar yi rek mooy mooy wax lu ma def moom ma ko def la waaw ah. mais bu doon man doonga moom wax dëgg yàlla man moom jàmm laa seeq yow tu xuloo dootul amati parce que instant maa ngi souffrir xool li ma sol kenn xamul lan waaw jeex na waaw ba ah, waaw waaw. ah waaw da ngay gaaw ñibbi si nag yow tamit ah defar ba mu baax. Ah. Mhm. Oh, waa léegi ok amu ko ah. ah, ah. je t'embrasse bien Marina mi ngi lay ziar dégg je t'embrasse aussi. ok mm, love you. love dangaa neex rek billaay yaa gis sa bopp di gis sa yaay doo doo maîtriser affaire bi comme maa ngi nii bu ma neexoon ma ma def ma def comme daa war a am fula mu jooyee ay soo fi jooyee jooy fi nga xool. jooy li nga wax triste rek. man ma ko am tax jooy ma ku la bàyyi nga jooy ma ko toll ne yow. yooyu ma sax de dama dama kii rek. dama yaa ngi nii taabu ba ma norsee la nga wax sa dàll yu rëy yi bëgg lu rëy torop Sénégalais mu bëgg lu rëy wala lu tuuti. dégg naa li nga wax am problème. merci beaucoup nga xaw kii quoi nga gérer ko. mu dëgër quoi. waaw nguur foo nekk sax mécanicien yaa ngi fi xaaju fi nga dem nga dugg métier. nga nga mën a yor dara. nekk ci ay mécanicien di taxal sama bopp nii ci weñ yeeg yooyu tamit. li waxatee ngi nii. non non yow yow maa lay diggal pour nga mën a kii nga may ay mécanicien taxal loxo ñi fa nekk da nga leen a gën. non question la damay laaj. bu ma waxee ay affaire de genre ay def nekk ci bureau affaire yooyu sax nga ne tax. kuy ba nga dee nga jël visite fooy rek dem ataaya ji nga ataaya métier. ataaya du métier ñu xool def yëpp dee nañ seen tamit xam nga mooy nit. boo non nekkul loolu. amul yedd man comprendre naa mais boo nekkee di continuer di continuer di ma kii nii xam nga damay tërë kii quoi wax nga ma comprendre naa. bul ma nekk di ma vexé nii di ma kii nii ci xale bu ndaw. ci xale bu ndaw ah. jërëjëf li nga soxlaa ci ah. man après dinaa jéem a xool. xale bu ndaw yow yow loo jéem a xool. benn métier bu yomb la. nga sa moom yëpp dem nañ yow gi yaa fi toog di wax ay waxi kii. mbay lu mu yorul yorul musuma ñaan waaye yaay ñëw ay na almaami papa almaami kii da da da maa mag yow yaa ma mag xool maa ngi juum sax yaa ma mag fi jooy billaay soo fi jooyee. da maa gis ma jooy almaami. jooy fi gis ma jooy. sa bët yaa ngi nii dafa lool sax taawul. waaw nga war sa sigim bi soo xamal li ngeen dugal. waaw koo na. amaam yow bu warul di am yow yaa war a am. xanaa ah, gisoo Wally Seck nii la def da kaa sëkkal ba mu naaj. non non yow sa bas bi comme toolu poobar. nga bokk sa ko peñee ba nga may toolu poobar. la mos defaral ci kër gi. defaral ma dëgg boo ko waxee dafay noppi. waaye wax dëgg kon ni di di kon ni non waxuma loolu defaral ma. non dama lay defar doo defar billaay. billaay doo maa nii ma la téye nii rek ma mën naa laa xoj fii. xojal xojal. non. Eh. moo tax nag nga lu muy daw. lan nga yuuxu noonu. Adama lan nga yuuxu. mu ne Ibou Ndiouf maa ko mu daw jël glace. waaw boo boo yuuxu maam doo yuuxu nànk. bu mu kam rek doo jënd glace jaar nii lu muy daw sax ñun jënd ganaar. waaw jënd ganaar <laughs> mënoo jënd frigo. wuyu ma sa bopp jóge ko ñu. mais yow da ngaa war a war dem yaay. waaw dinaa la war kaay. lii xàpp nag la nii xaaral doon gii. lii <laughs> monaat kay sa waay ëpp naa fecc fecc monaat yii lay jàpp. ma la ma xamul yow yow yaa ngi may fekk fekk may fecc nga dugg sama fecc yooyu lu sa. yow kat yaa ambiance tey da saf jigéen de. may sax xaw ma nu mu demee nii tey da laal say sil def sa lii xaw ma combinaison la xaw ma nu mu demee nii. ah yow mosoo saf jigéen ci saf jigéen. sérieusement man xaw ma nag ba xam li ma la wax sax moo tax parce que gaa yaa ngi la koy jiiñ. xaw ma mu demee noonu tey nga rosaaw def say affaire maquillé wu mosoo ko yow rëdd yi crayon sax daawoo ko def tey daal jigéen daal xam nga nii dafa baax boo nekkee jigéen da ngay def yëfu jigéen des fois nga sa sañ si jigéen. yaa ngi may fekk maa ngi toog jàpp sama ñaambar. Ah. maa ngi lees maa ngi waxtaan ak ñi ñu maa ngi kaf nga bàyyi sa yi def naan ma ay yëfu jigéen góor nga daan def yaa ngi comprendre mm. booy ñëw ñu waxtaan ñëwoon ñu waxtaan mais bu dugg ci domaine boobu. foo ma wax ko mosoo mel nii nga mel nii mosoo koo mel ah, te bu loolu weesoo sax man tey dama ne woon man il ma am lu ma la expliquer ci ci ci cas allemand bi. mais allemand mi bu dee gone la man dina ma jaaxal. Ah, non mais léegi allemand mi dafa osé ci kër gi. Ah, sama xarit la xam nga man damay waxtaan ak moom lu bëri. ba pare démb xam nga cin tàkkul ci kër gi. Mm-hmm. fu ne la gars yi lijjanti amuñu dara allemand mi moo mujjee décanté euh, gàlle bi moo ko mujjee décanté moo génne dépense génne weccit bu bëri. Ah, sànq fekk na ma fii ci salle bi woo ma ma ñëw. waaw ah, koo sàcc. Ah, ban sàcc dégg naa da doon dajale def ay affaire ak yooyu. parce que mooy bii. du amul lu mu amul lu mu naan dina da doon dajale yenn affaire yi ko daan jox xam nga moom nitu mbedd la woon ci mbedd mi la daan dundee daan jël ay affaire di di dajale ay weccitam yu bëri démb bu woon ak moom ñu fande ba pare sànq woo na ma ak lu weccet jox ma ko ba pare booy bi daal man daal xam naa ni daal almaami daal bu dee gone jaaxal na ma de bu dee gone la dina ma ma yaakaar ne dafa def jugement wàññi ay atam. kii nee naa nit ngeen teg ko ci kër gi. yooyu eh, baal loolu kii du nit di. wax nit kenn du ko tiim naan kii yi muy def nii yëpp nit la. yu muy def. xale bu ndaw ñun waa kër gi ñun ñun mosuñoo ñàkk luñ lekk. waaw mosuñoo ñàkk luñ naan. moom mu tëb tëb rek ñoo jox nañu lekk wala parce que dafa indaale wërsëgam ci biir looy wax ci moom bay boo nga xam ko. xale bi waxtaan naa ak moom mais ku am esprit la du ngaaka na nga ko bàyyi xel ba pare sa jéem a xam nga yi ngay def nii di ko contrer ci biir kër gi yooyu bàyyi ko. xale bi moom wax dëgg fa neex yàlla man ak moom mënuñoo bokk kër gi. waaw moom mu toog ma fa toog. gis nga loolu boo bàyyiwul di ko wax man leer na man sa génn kër gi day taxaw. waaw man ma génn moom mu toog. ah. waaw pare nga pour génn kër gi. ah. foofu bi jotewul yow dara. xale la jéem koo supporter yaa ngi dégg du nit ku bon yaa ngi dégg du dara yàlla suñu borom moo ko nattoo nii mu am fu mu jaar ba ak si fii te lii yàlla tuddoon na ko kon jarul nga fi nekk di ko bañ ak wala ngay def yenn affaire bi baaxul nit dangay jël sa xol bi nga yaatal ko nekk taalibe comme ni ñu la yaatalee ci kër gi parce que boo ñëwoon ñu lay bunu xataal doo fi yàgg da nga ñëw ñun ñëpp ñu yaatal la weer wi yee ngi nii fayoo. mais terewul gaa yi dañu ubbi seen xol yi yaatal la xam ni situation obdise tolluwaay la ci doomu aadama. kon kii bu ñëwee dañ koy yaatal. mais bu ni man ñàkk fay ba ma fay du ci man man chaque mois damay fay mais weer bii mënuma ñàkk bañ fay démb mbay gis nga ni ma fi def ma ñëw taxaw di la naan ndax café am na mbay tuuti mu buddi sama loos bi. parce que moom ngóone mbaay. que démb dañu saturé kër gi amul dara courant bi gars yi dañu leb ba nii may wax yow nii tey à tout moment courant bi mën na coupé. ki indi ravitaillement bi moom lu ko yëgal ni kër gi amul dara. ah loolu xaw ma xëy na peut-être ay coup de am na parce que kooku n'est-ce xam nga ni moo war a takk Ngoné Mbaye Père maa ngi koy dégg daal ñoom waxtaan nañ li ñuy waxtaan xam naa Père Taf yàgg dara dina def farata takk Ngoné Mbaye mais man maa ngi doon Ngoné Mbaye mii di ko ci kër. dinaal hmm. cere la. lu tax kii ma gis. mais Ngoné Mbaye jigéen la. kii ci kër gi rek mën dëkk. Ngoné jigéen la de.